thank merci beaucoup Sister Mine kooka la ñu nekk OMG quel plaisir ah titre bu bees allez regardez likez partagez la toute nouvelle vidéo de OMG disponible sur YouTube ñi ci kontaan bu baax a baax what's up Mekki Kalla wala wala wala boog how so so <laughs> xam nga woo naa la jëloo ma <laughs> woo naa la sa téléphone mi ngi fay xam nga amoo chance. <laughs> moom da lay tagg léegi moom lii la lay nuyoo léegi ah. <laughs> lii la am na lu tax euh, na ay dara karara. ci loolu ne mais how are you ma how are you sister. I'm good I'm good you okay? Uh, what about today? Um, today I'm come with a lot of news. nga ni ma. I appreciate I appreciate And I like the way you speak English. Your accent is so good. Oh, I know that. You know that. because I'm American girl. you American girl. ma doon it I appreciate mais booy gis <laughs> nga xale bi tay day jàng anglais dégg ngeen ko tay dafa gën a garaaw. alors nuy naa la ci loonee. maa ngi nii rek yaay cool. yaay baax. ni nga def ci blanc tey jàppale ma xam nga démb danga ma xool nga ni ma blanc dafa la jàpp ci télé. waaw parce que boobu maa ngi xalaat TikTok bi ñu war def. waaw exactement man lépp may def doo ko sóoraale mais man dama koy sóor. <laughs> donc maa ngi nuyu képp ku ñuy seetaan waa Mauritanie waa Gambia waa Mali ah partout ñi nekk ci diaspora bi maa ngi leen di nuyu ñi caabi féete gannaaw fàttewuma leen benn yoon maa ngi leen di def un gros coucou ñi tëdd ci lal hôpitaux yi aussi maa ngi leen di ñaanal wér donc ñu ñëwaat ci Actunet euh, rek ay dara chaque lundi et jeudi Grégoire bu dee éléments yi pare na rek let's go. Cette jeune fille de 21 ans est morte avec toutes ses parties intimes qui ont disparu. Osta est une influenceuse nigériane, surtout connue pour sa vie de bling-bling. Cette vie de luxe, qu'elle n'hésite pas à exposer sur les réseaux sociaux, elle la doit à un jeune homme millionnaire connu au nom de Killaboy. Ce dernier a pour l'habitude de lui payer des voyages 5 étoiles avec des shoppings totalement fous. Rappelons qu'au départ de cette aventure, les parents de la jeune fille s'étaient opposés à cette relation avec Killaboy Mais ce désaccord ne durera pas longtemps du côté de la maman de Hosta, qui n'a pas hésité à mettre fin à son mariage suite au refus de son mari d'accepter la villa que leur a offerte le petit ami de leur fille. Elle s'installa ensuite dans la dite maison, mais est loin donc moom ak euh, copain dañ doon dund relation toxique maanaam dañu bëggante woon mi dañ doon reyante chaque jour waa ji nag c'est un milliardaire à son âge à 26 ans mm. il est milliardaire donc euh, chaque fois dañuy def ay voyage ci ay jet privé muy defal xale bi loolu ak loolu loolu ak loolu léegi nag xale bi disparaître li mu disparaître pendant un moment après si lañ dem euh, ci beneen dëkk bi mu àndoon nag waa ji ñëw ñu ñëw fekk ni dañ ko rey ba pare bi ñu ko reyee dañu daggaale cëram yu bëri quelque temps après si la waa ji def annonce ci compte am Instagram assumé ni que daf ko jam nee na nag bëgg ko woon a jam xuloo moo amoon seen diggante et après ça s'est mal ça s'est mal tourné et il s'excuse il regrette vraiment il a détruit sa vie à à 26 ans moom waa ji nag désactivé nag compte am yépp ci réseau sociaux yi disparaître na ba léegi xamuñ fan la nekk. alors c'est le même cas que j'ai lu et que je vous ai euh, donné hier les amis. Mm-hmm. Méfiez-vous de ce qui se passe sur les réseaux et de ces stars-là que vous voyez, que ce soit Kheucha, que ça soit Racky ak quiconque ak ku mu mën a doon donc gis naa ci à travers les commentaires on vous dit par exemple que vous voyez benn Racky elle a une très belle voiture ah elle est clean donc mi ngi liggéey mi ngi ci télé mi ngi daan dooleem yàlla dogal na ko mu am ko am na ci keneen koo xamante ni xamoon nu muy def ba mu am ko. exactement donc méfiez-vous. ci ñi ngeen di gis à ah, l'apparence fait souvent trompeuse d'habitude c'est ce qu'on dit. Mhm. méfiez-vous ci nit yi ngeen di gis à la télé sur les réseaux ak lu mu mën a doon la fille là à ce qui paraît sur ses pages sur ses plateformes elle était toute clean. xam nga nice clean rafet xam nga lu luxe rek la daan wan xale am na ñoo xam ni bëggoon nañu mel ni moom le gars lui-même euh, tax na ku jigéen ki way juróom bu góor ak way juróom bu jigéen divorcé et bi ñu divorcé way juróom bu góor xaalis bi xale bu góor bi doon ko jox bëggu ko woon et après comme ni ko Racky expliqué allez regarder sur ces pages d'après ce qui est écrit donc da ngay xam ni kii ay rituel sax la doon def da ko doon def ay sacrifice daggate ay loxo des trucs yoo xamante ni tu n'arrives pas à comprendre donc fi nit ki di jëlee alal pour di la ko di la wan lu bien ci moom. Mhm. di la wan ay ay affaires yoo xamante ni euh, c'est de voitures de luxe ah c'est des des des portables c'est des trucs noo xamuloo ko kon nit ki war nga gën a mën a gëm sa bopp wóolu sa bopp sàmm sa bopp te bañ a ñee kenn bu leen ñee seen benn morom. bu leen ñee kii que ce soit. je vous dis bien que ça soit mu nekk koo mën a gis ci àddina bu ko ñee la nga am. doyloo ko te xam ne loolu la suñu borom bi dégg c'est li ci gën a suñu borom saako ba pare mais yemalewul suñu ay wërsëg. Mm. tey man li ma war a am dama ko dama koy am ala kulli aal. Mm. tey mën naa ëppale diw keneen mën na keneen daf may ëppale par force saa yoo génnee di nga romb loo moomul. donc nañu xaw doylu parce que góor mën na taxaw tey jii nii yëkkati ay millions yi million yu millions may la yow doo am benn arrière pensée kii lan moo tax mi ngi may financé lan moo tax mi ngi may jëndal oto. lan moo mm. tax mi ngi may jëndal kër ak lan ak lan tey jii nii vous xaarewul loolu ci moom bu ko doon xaar ci moom du ma a dugg ci këram wala seq ak moom benn relation boo xamante ne ni relation amour la wala amicale la wala quoi que ce ndax ku la ray dagg say cër dem di la sacrifier sa c'est très très très grave donc les filles faites très attention alors euh, bi mooy suñu numéro un ci rubrique bi mm. nañ dem ci numéro deux bi donc euh, Kheucha li benn xale bu ndaw la bi taw bi amee récemment donc moom courant moo ko maas dafa doon dafa doon jéggi ci euh, ci ci ndox bi après courant bi nag jàpp ko dangay gis sax euh, am na benn vidéo buy daw sur les réseaux sociaux mais vu que dafa très sensible mhm. mënuñu ko teg ci télé bi da ngay gis gars yi ñoo ngi jël bant sax di di ko dóor xale bi pour di ko jéem a xool ni ñu koy xëccee pour courant bi bàyyi ko pour ñu bàyyee xel ni buy taw bu kenn génn tey leen seen doom yi ngeen bàyyi leen ci biir kër yi ndax courant yi fil yaa ngi ci suuf ci si biir suuf si te ndox yi day taa ndox yi du bouger fa lay toog donc faites très très très attention Richard. nga dee bu ñëwee moom moom gere euh, euh, rek kenn du ci mën dara. waaye nañu gën a sabablu rek. ndax taw moom àndul ak i courant. e surtout ci euh, moment yi ñu toll nii nañuy moytu poto lamp yi buy taxaw. Ah, buy taw potolam bu mu mën a doon da gis sax fii li def tëf tëf tëf tëf compliqué donc méfiez-vous de ces trucs ak buy taw nga mën a nekk ci endroit boo xamante ni peut-être doo ci mën a am musiba wala dara dal la en plus ndox mi bari na bari goo xamante ni ku ci moytuwu rek euh, dara mën na la ci fekk kon ñu bàyyi ci xel c'est très important c'est très important alors Grégoire nañ dem ci suñu troisième numéro donc Kheucha lii mu nekk nouvelle boo xamante ni c'est vraiment triste franchement man sama rubrique tey moom dara neexu ci c'est très très triste lii géeju wokkaam la dañu jékki saay toog rek gis quatorze kii koor yuy génn ci ndox mi di ñëw nee nañ dañu ne jëloon gaal gi di jéggi pour dem xam nga pour wuti daani seen doole mu doon loo xamante ni c'est vraiment vraiment triste man quand j'ai regardé la vidéo j'ai vraiment pleuré parce que nga gis benn corps sans vie ay nit ñoo ngi ñëw téye la di la génnee ci ndox sachant que da nga demoon pour wuti en fait j'ai non comment j'ai je peux pas commenter plus. en plus euh, euh, tu sais booy boo leen di dégg da ngay xam ne kenn bëggu ci dem mais c'est-à-dire je dirais pas qu'ils n'ont pas le choix mais ils sont fatigués ñàkk dafa metti rek. Mhm. xam nga bu la yàlla de suturaal ngay toog ci télé nii léeg-léeg nga am benn vingt mille francs trente mille booy def sa poche mën a yónnee yaay mën a yónnee papa yow. tu mm. da ngay jàpp ni kenn sonnul. am na ñoo xam ne euh, rak yi dañuy toog une semaine du ñu am benn 5000 francs ci seen poche. et pourtant bëgguñu sàcc bëgguñu fenn. donc c'est un peu compliqué. yal nañu yàlla suturaal suturaal ndawu Sénégal. ba li nga xam ne suñu borom won nañu ko ci suñuy gët. Mhm. yàlla def ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu jéem ko génne muy pétrole ak gaz. Mhm. ba àddina bi sénégalais yi ndaw ñi ñëpp am liggéey ba ku ci nekk daan sa doole en tout cas métti na. Euh, mais mais Kheucha tout tout sauf gaal dëkk bi métti na lool métti na ci ñëpp de. Mm. ñi am salaire milliardaires yi pauvres yi dëkk bi ci ñëpp la métti mais dañu leen di ñaan ngir yàlla ak yonent bi gaal yi teg leen ko ci suuf. parce que bi ngeen ko dalee jël ba léegi gisuñu ñu ci am ndam bu dee am nañu ci am ndam benn 1 pour la donc en tant que suñu ay frère suñu ay papa suñu ay jëkkër ñoo ngi leen di ñaan ngeen bàyyi gaal yi li laay war a suul yi. c'est compliqué à parler vraiment donc ñu ngi leen di masawu ñi ñàkk seeni doom. Mm-hmm. Euh, di leen wax ni wax dëgg yàlla. Euh, euh, xam naa ni bu ñu amoon lu leen gënal du gaal yi moo leen di moo ci leen di dugg. waaye nañu xam ni réew mi am na lu fi yàlla bàyyi. Mm-hmm. donc loolu di pétrole loolu di gaz nañ ko bàyyi xel gars yi nañu xaar rek ndax yàggatul ci kàttanu yàlla réew mi dina neex de gars yi dina neex loolu incha allah. dina neex incha allah moom Grégoire ñu suñu beneen élément bi rek ñu daal di dem. alors bi accident bu métti métti métti moo am ci yoonu Louga Kheucha saa yu am na 23 morts yu ñu yu ñu enregistré. avec plusieurs blessés beaucoup beaucoup beaucoup de blessés donc ñoo ngi doon ñaan aussi képp koo xamante ne ni yaa ngi Louga wala jege nga Louga nga dem ci hôpitaux yi nga maye deret ndax maladie soxla nañ ko lool xëcha accident bu méttee méttee méttee métti mi ngi noonu. ku gis oto bi rek jarul nga naan métti naam méttiwut. ndax oto bu tas ba tasaaroo nii. ku ko xool xam ne ña ca nekkoon ña ca am ay blessures seen ay blessures grave na lool. grave na lool donc ñi nga xam ne ñoo nekk ci alentour jàpp Louga jëm Paal jëm Ndar. ak li ko wër jël pay sama dëkk maam ak ñoom seen euh, bu ci nekkee am na ay ndaw yu mën a mayee deret nañ dem may ñooñu le ay euh, deret ngir sauver des vies donc ku ci maye sa deret xamal ni sauver nga ay vies ndax euh, ay gaañu gaañu yu métti la ko nit ñi jëlee ñi ñàkk seen bakkan itam ñu ngi leen di ñaanal yàlla xaaral leen aljana firdawsi métti na lool tiis la naqar la ci képp koo xam ne am nga ci mokk te mbokk gi mbokk Sénégal mbokk ñëpp la donc bu fekkee ni euh, kenn ñàkk na bakkanam rek dafa mel ne Sénégal moo nekk en deuil kon nag ñu ngi leen di masaw bu baax a baax waaye te nañu bàyyi xel ñoo ngi ñaan chauffeur yi aussi ci période nawet lañu nekk tali yi day ratax ñun ñoo ngi leen di ñaan ngeen daw ndànk li laay war a soli ñi ngeen di yab ay mère de famille lañ ay père de famille ay xale yu am avenir te yéen tamit dafa am ñu yaakaar ci yéen ngeen di suñu ngeen di ay père de famille ñoo ngi leen di ñaan ngeen daw ndànk yoon def leen ndànk rek yàgg-yàgg di ngeen yegg incha allah donc nañ dem ci suñu dernier élément Grégoire bu dee pare na rek connecte-toi sur WhatsApp vas-y. alors li euh, kaw Amina Poté ak Koutia la donc Amina Poté dafa réclamer 100 millions Koutia pour diffam euh, ah. diffamation. <laughs> <laughs> Amina Poté daal nee 100 pour diffamation. Ah, Amina mi bëggul baax Koutia mais est-ce que est-ce que blague à part Amina Poté ak Koutia est-ce que xam nga ne xam nañ ko de léegi ñu ngi koy commencé xam de. ñu ngi koy commencé xam nga foofu <laughs> parce que est-ce que man wax ci nit lu loo xamante ne wóoru la xamoo ko wala nga dugg ci réseaux sociaux yi di yàq nit ki di ko waxal loo xamante je ne sais pas c'est très dangereux ça détruit la vie de la personne. surtout surtout tey léegi nii jamono juñ toll dañ ciy tëj nit gars yi boo nekkee Sénégal <laughs> waxal loo xam ci nit ki de. ah waaw baax na ah, gis xasaa mii nga de wala rak yi xanaa xam nga yéen ñi dëgg bii ne daan naan xasaa ak rak yi dañuy génn bu leen ko tëppalee <laughs> tëj mais lan moo tax ngay nëbb sénégalais yi dañuy génn diffamation la lan moo tax nga leen di nëbb ni dañuy génn. <laughs> raki ma xoola xamala la. yow ay anglais ay français nga dégg. man olof laa dégg fa laa nag <laughs> wax naa la ko nag. maa ngi dee donc c'était ça Kouthia moom. xam naa ne day xool nu muy négocier rek. waaw na négocier rek cent millions négocier te tàmbali sa émission bi. kii mais Aba mi ngi émission. Aba Aba no Aba gis naa ko gis TFM de. ah a na def émission. waaw dama rek dama la xool ba xam yaa ngi émission. <laughs> waaye danaa yaa émission waaw lu la defatul. gisatu ma ko fa de xam nga keroog daa géej doon plateau ba dem. bi mu géejee ba tey defatul. gisatu ma ko fa de. problème am na. problème am na kay. problème amati na fa de. mais xam nga lu ñu def nag Kheucha. ñoom Maam Ndiaye Savon ñoom Diko ñoom Pendo nañ leen jéem a abal fële rek. no non ñoom bëgg nañ parce que dégg naa ñi ngi leen di may ay oto. ah waaw ah, Maam Ndiaye nee na may nañ ko fa oto di. wallaay ñoom bëgg nañ ñoom nag ñoom nag ndeysaan da ngeen war a xam ni. ñoo ngi jënd suñu ay influenceurs télé buy télé fii ci <laughs> Sénégal 2S ngay seetaan ça je vous le dis ah. regardez nos émissions durant les vacances ngeen ah. xool après. di ngeen gis ni dinañ jéem a indi suñu gars mais nag dina metti lool. parce que nee naa la ils peuvent nous copier. mais ils n'auront pas des animateurs à notre niveau c'est-à-dire à notre âge. jamais xam ñun ay xale lañ. ñun ay xale lañ. on est jeunes quoi. ñun kër gi liggéey si wuñ fi de dañ fi dëkk. <laughs> alors mais booy kontaan naa donc ça c'était tout pour aujourd'hui mais ni nga demee démb noonu ngay demee tey. waaw dafa mel ni de ah si maman. ah jàkkaarloo nag. xam naa semaine bii may dugg nii ñaanal rek. muy def. seytaane de lañ tegal. Ah. nag. léegi ah. bul def noonu nag parce que. Ah. démb man xaar naa la. du ma xam nga yow taay sama xarit nga. taay dëgg ma xam naa ne taay laa la gën a sentir sama wet. ma def xam nga démb danga ma ni. Hmm. sëriñ bi liggéey bi ma la liggéey dafa jàpp. danga ma ko waxee liggéey bi toj. toj na kon ku toj na yàgg na. nañ def noonu rek kon ñu mel nañ meloon nañu nit ku bon nga nag <laughs> baaxoo mosoo baax. Grégoire xam naa ni euh, juste après cette chanson nous aurons euh, ki nga xam ne moom moo di sunu xoolal mu naan ma ah Grégoire sa connexion dafa jeex. Grégoire la connexion am jeex nee na ma ko seen ma ko ci Alain Géré nag yaa ngi ci ay jafe-jafe rek yi ay dara ah, ah, ah, dimbalil Géré alors rapidement pour votre plaisir les amis on enchaîne avec ki nga xam ne moom moo di Pagaye Mbaye Mbaye Moussa Diama Koumba Sène Mbaye Goli Fatim Madiodio Borom Gaye Njire Mbaye Demba Xoy Mbaye Demba ak Lati Mbaye Demba ak Yaboy Mbaye Demba juste après nous aurons notre invité si c'est bon Pagaye Mbaye l'homme de Pikine c'est parti rak yaa def lii ah rak yi xamatoo